alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki jullit yi ñoo ngi delloog yéen ca waxtaanu maas googee nga xam ne amuñu moroom maas googee nga xam ne fa la yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon dund seekal boobee nga xam ne mooy seekalum nit ñu baax ña ña jëloon seen diine jébbal ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu di leen jàngal di leen yar di leen tarbiye ci alquran ak sunna xutba tey kon jëmul ci njàmbaar yu mag ya ak jaloore yu mag ya nga xam ne moom la saxaaba ya doon def jëmul ci coono yu metti ya jëmul ci xam-xam bu bari ba ak tasaare ga ak nañ ko doon dunde jëmul ci seen sàmm bu metti ga itam jëmul it ci seen dëddu àdduna ga waaye mi ngi jëm ci geneenug wet mu ngi jëm ci wetu ñi nga xam ne sunu boroom nattoo na leen bàkkaar teñ bokk ca saxaaba ya bi nga xamee ne lislaam ñëw na madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne loolu bu yàgg la ëpp na fukki siècle ak ñeent yonent bi alayhi salaatu salaam nam daan jëflanteeg saxaabaam yi mooy toog fa jàkka ji ñu wër ko mel ni weer boo xam ne biddiw yi dañ koo wër ci lëndëm ga muy jàngale di yar di jottali nit ñoo xam ne ñu ngi doon dund dund bu lëndëm mu war leen génn ci lëndëm boobu indi leen ci leer benn bés ci jàkka ji ñu toog saxaaba yi war ko fees dell ansaar yaag muhaajiroon ya boroom xam-xam yaag ñu baax ña ñépp toog di déglu sallallahu alayhi wa sallam ñu jekki-jekki seen soxna su muuru jigéen dugg ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen ko mu dugg di ñëw mu ne tekk téye wax jam doon wax saxaaba yi geesu seen ne dafa am kuy ñëw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne tekk soxna soosee continuer di dox ndànk ba agsi taxaw ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di nuyoo ne ko yow yonentum yàlla bi day man bakkaarum yaaloo daf maa gaar ma ñëw di wut ku ma laabal loolooy samay tànk foofu nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def man noonu naa jékki-jékki ne ah yéen ñi fi toog gaaw leen témoin yéen a ko déggandoo ndax su ko ñeent témoin rek mu wax ko ci kàddu boppam kon àtte ba dal nay dal mënoon naa def ni ñenn ñiy def suñ déggee ku mooy yàlla wala ko tàbbi ci bàkkaar mel ne dañ caa bég di ko tasaare waaye deful noona xar kanam ba dafa daldi soppiku mu mel ne ku mer mel ne ku am aw naqar daldi koy du móoyu mel ne déggut lim wax ndaw si jaaraat ca ñaareel bi yoon mu du móoyuwaat mu jaaraat ca ñetteel bi yoon ne ko dafa ëmb ci njaaloo kon jigéen a goog joo xam ne la chaque ne am na lu nekk ci xolam ci pas-pas ak ngëm goo xam ne moo defar xol ba ba tax mu feeñ ci cëram yi mu mën a to jëkk seq yooyu ko ndax ndaw si jamono yooyu dafa yaakaaroon ne laabal googi muy wut si mooy rekk ñu dóor ko ay yar walla ñu xas ko ci kanam nit ñi déedéet xamoon na ne li koy xaar moo di bakkanam bi ci boppam moo war a génn àdduna ndax ku sañew woon la kon dey lu rëy rëy moo ko yëkkati tànk tànk yu mag lay dox ña doonoon ay moy ña ak moy daloon ca saxaaba ya suñ leen di jàngat dañuy dem ba yëg ni ñooña lañ yoroon ci ngëm yàlla dem nañ ba àgg ci darajey lu bari ci sun nit ñu baax tey nga xam ne ñoom lañuy def bu ñu leen tuddee ñu ne ku baax kaa ngoog ñooñee ñu gàllankooroon ak mooy yàlla daloon leen ñooñee ñoo gën su lu bari ci sun nit ñu baax ñi tey lu baree baree bari ci ñun tudde tey ay toppkati yàlla ak jaamukati yàlla ak dëddukati àdduna boo leen méngaleeg ñañ jàppoon ne dañoo tàbbi ci ak mooy yàlla ci jamono jooja xool seen histoire dangay rus ngir ngëm gañ làmboo woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko tontu gannaaw boo xamee ne ñetti yoon ndaw saa ngi baamtu rekk di wax li muy wax daldi wax ne nañ daldi taxawal ci moom atte bi yàlla ndax amaana ndaw si li muy wax da koo xamut amaana dafa juum amaana am lënt dafa am te am lënt tax kat nga bañ a jàllal atte ba moo gën nga jàllal atte bi nga jàllal atte ba ci am lënt maanaam lënt ñëw moo xam ne gàllankoor na la ba tax nga bàyyi àtte ba mu jàll bañ koo def loolu moo gën moo gën a dal xel moo gën a yàlla nga sukkandiku ci am lënt jàllale ab àtte kooku ab règle générale la boo xam ne lislaam da koo jàngale moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëbalut kenn muy gëstu ndaw soos yi wala mu naan nañ ma ko déglul wala nañ ma seetal ba xam lu mu doon dund lan mooy ay jikkoom ndax yooyu yépp dafay dugg ci gëstu mbootum jàmbor te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koy tere mas naa taxaw wax ne mboolem yéen ñi nga xam ne da ngeen a wax ne gëm ngeen ci seeni làmmiñ te ngëm àggagut ci seeni xol bàyyi leen jullit yi ngeen di jëw bàyyi leen awray jullit yi ngeen di topp ndax kat ku topp awray mbokkum jullitam yàlla dana topp sa awra te ku yàlla topp sa awra nee na dana la toroxal donte sax ci sa biir kër ki daan wax loolu kon toppatoowut loolu kenn mu seet awray jàmbur mu geesu ne ko demal demal ginnaaw da ngaa ëmb demal ba ba am doom ndaw sa daal dem bi mu demee ëmb diir ba mu ëmb dellusiwaat loola nag doon loo xam ne lu doy waar la la tax bu ne ko demal kooku taxawaayu lislaam la ndax dafa ëmb doom joo xam ne deful benn bàkkaar kon doonte ëmb ba soriwut it kenn sañu ko ca rayaale kon lislaam moo jëkk a sàpp sàmm ñépp li ñuy wax xuququl insaan muy droit de l'homme xale ba nekk ci biir ba nga xam ne soreegut tax na atteb yàlla ñi téye ko lu mat juróom-ñeenti weer wéyaluñ ko ndax xaar xale boobu judd kon loolu mooy sàmm droit de l'homme wala droit de l'enfant wala droit ku juddoogut sax danañ jële ci loolu ni ngëm gu dëgër moo nekk ci xolum ndaw soosu ndax kat ba mu ne koo demal mënoon naa dem teggee fa bu faw te du siwaat te du yàgg ka yàgg ba mu yebal ay nit di wax ne dem leen seetali ba ndaw si fi masoon a ñëw kon yi da koy bàyyi rek mu jàll noona mu wéy waaye borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci alxuraan ne ñu baax ñi am na ci ñoo xam ne su fekkee ne def nañ ñaaw téef ñu baax ñi am na ci ay jëmm yoo xam ne saa bu leen ñaaw téef dalee muy bàkkaar wala ñu tooñ seen bakkan mooy tooñ seen bopp saa bu leen dale ñu fàttaliku yàlla te suñ fàttalikoo yàlla dal koy jégglu ndax xam nañ ne yàlla mooy jéggale bàkkaar nee na loola moo tax ñooñu duñ nuur mukk ci bàkkaar li feeg ñi nga xam ne def nañ bàkkaar boobu saa buñ ko yëgee rek tuub soxna sa ëmb doom ja juróom weer doom ja judd guddi gëm juddoo bi mu xëyee ci suba si la ko laxas ci morso dikk ñëw fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yee xam delluwul gannaaw ci décision ba mu jëloon te du caagi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yónnee ab armée wala mu yónni police ne leen dem leen indil ma ndaw sax ñi dem xëcc ko jële ko ci néegam déedéet moom ci boppam moo dikkal boppam ne yow yonent bi yàlla bi laabal ma ci njaaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool gone gi mu doon lu tuuti xool ba metti lool woyof ndax kooku mooy yonent bi nga xam ne yërmandeem dafa dajoon lépp yërëmoon na ba yërëm mooykati yàlla yi yërëm ba yërëm picc yi yërëm ba yërëm mala yi sax yërëm sax ba yërëm ku dul jullit kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi daf ne ko <coughs> wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la ludul nga doon yërmaande ci bindeef yi waxut ne ko ci jullit yi de waaye ci bindeef yi kon noonu la meloon mu geesuwaat ko ne ko dellul boo demee nga nàmpal ko ba mu fer ndaw sa delluwaat këram kon foofu droit de l'enfant feeñaat na mënoon nañoo def atte bi jël xale bi jox ko ku ko nàmpal ndax loolu lu siiwoon la ci société boobu jur doom ba noppi keneen nàmpal ko waaye deful noonu dana ko dellul boo demee nga nàmpal sa doom kon mu dellu bu ko neexee sañ naa toogaat ñaari at ndax nàmpal mën naa mat ñaari at ci lislaam kon loolu lépp wut ab délai boo xam ne ubbi buntu bu yombal ndax kat diir boobu ñuy ubbi yépp bu neexoon ndaw si mu dem toog tuub borom bi tabaraka wa mën na ko jéggal waaye ngëm gi ne ci xol bi moo ko bàyyiwul mu toog këram mu dellu nàmpal ko ba nga xamee ne ab nàmpam jeex na ba mën a lekkal boppam mu daldi fab gone ga ànd ak moom dikk leewu ko xale bi yor morso mburu ci loxoom yaay ji jox ko ko loolu lam ci jublu mooy waxaale yonent bi ne ko xale bi mën naa lekk léegi mu dellusiwaat ne ko tahir ni yaa rasulallah yow yonent yàlla bi laabal ma kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la muy yëg kenn xamut lu mu doon ndaw seet la muy yëg kenn xamut lu mu doon yonent bi jël xale bi yoral ko boppam daal di laajte kan mooy yar jirim bi sàmm ko taxawu ko defar ko te ëllëg maag moom nooy bokk fu nekk ci àjjana kenn ci ansaar yi jóg fab xale bi kon taxawaay bu doy waar ngoog bu daw yaram boo xam ne ndigalul yàlla moo taxaw moo tax kenn mënta dellu gannaaw yonent bi mënta dellu gannaaw ndaw si mënatula dellu gannaaw kon ngëm gi ci xol moo xëcc nit foofu puus ko mu ñëw déclarer mbirum boppam te ngëm googu ci xol bi la nekk kon mënut a génnaat ci diggante bi loolu moo tax ndaw soo si taxaw mel new doj loolu nag mooy yarub lislaam wa daru zahira al ismi wa batina bu ko borom bi waxee bàyyi leen li feeñ ci bàkkaar ak la ca nëbbu loolu amul benn régime moo xam police la moo xam lu mu mën a doon ci àdduna li nga mën a tere nit ñi mooy li ngay gis ci bitti waaye la ca biir kooku lislaam rek moo mën a àgg ci di wax na nit ki bul def nangam muy taxaw di ko bañ a def ndax biir ba lay defar bi liy xewee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen jël leen ndaw soosi ngeen takkal ko yéeréem ba mu dëgër ba dara du feeñ ci yéeréem ngeen yóbbu ko dem atte bi yàlla wax ngeen def ko ci moom ñu daal di def noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko defee ba àggal ñu ñëw yëgal ko ko mu ne nañ ko defar ñu defar ko mu ñëw taxaw di ko julleel boppam omar ibn alxataab radiallahu taala anhu ah, yàlla bi da ngay jullee ku njaaloo alayhi salaatu wasalaam mu ne ko waat naa ci yàlla ne ndaw si tuub na tuub goo xam ne suñ ko séddale woon juróom-ñaar fukki nit ci waa Madina ñoo xam ne dañoo def ay bàkkaar tuub googu mën na leen a yóbbaale ndax xam nga ak tuub gu gën a sell nit ki jël bakkanam joxe ko ngir yàlla kon tuub gu gën a sedd googu amut kon mbokki jullit yi loolu mooy lislaam force ak kattan boo xam ne ci biir xol bi la nekk xamul ak doyadi waaye nag yërmaande joo xam ne su duggee ci xol bi ak nooy la àndal goo xam ne day dem ba nga jàpp sax kooku yërmaande ji tax na mu feebal waaye nag bu àtte yàlla taxawee nag feebal amatut kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diine la joo xam ne it bàkkaar lu mu rëy rëy bu borom tuubee borom bi tabaraka wa taala jéggal ko diine la joo xam ne defukaayu yiw la yit yoo xam ne nit ki mën naa def aw yiw mu yëkkati ko ba mu ànd ak yonentu bi yàlla place ca àjjana kon loolu mooy diine lislaam lii nag buñ ko xoolee danañ gis ne war nañ cee jànge ay leçons yu bari bokk na ca ne lislaam diine ju maandu la diine la ju maandu justice ci lislaam buñ koy wax dafa doon loo xam ne xàmmewul mag ak ndaw xàmmewul góor ak jigéen xàmmewul ku am daraja ak ku amul daraja bu xasee dikk kam tege ci kawam faaw daa war a tege ci kawam rek su tegewul ci kawam su boobaa luwaa tekkeetul dara amatul benn njëriñ ñépp war a yem ci kanam luwaa waaye lawaa luwaa suñ ko tuddee ñu ne am na ku mag koo xam ne loolu wër te tege ci kawam am na borom daraja am na borom alal yoo xam ne bu ñëwee daa war a cëpp-cëpp ci kaw ña néew doole ña ñàkk solo su boobaa luwaa amatul ñu bañ koo bind moo gën kon loolu mooy lislaam ñépp la yemale moo tax bañ dikkee wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw su sàcc ñu ni ko ah kii kat dafa bokk ci banu maxzum ñu ne nu ñuy def ñu ne nañ yebal usaamatu bnu zeyd usaama mooy koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko bëggal boppam ñu ne ko demal nga tinu ndaw si ndax ñi bañ a dagg loxoom usaama ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko ne ko ah daa am ndaw su sàcc de soo xam ne ay yooni yooni yoon da koo def ba ñépp di ko jàmbat te nag daa bokk ci banu maxzum ñooñu bokk ci Quraysh mu giirug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci famille yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer Usaamatu bnu Zaydin mi nga xam ne yonent bee ko bëggal boppam ne bis boobu yonent bi dafa mer ba mel ni xamatuma mu ne man ndax dangay ñëw di tinu ci loo xam ne àtte bi yàlla la daal di ne ko waat naa ci yàlla ne Fatima bint Muhammad sama doom man su sàccoon danaa dagg loxoom kon loolu mooy lislaam amul ku mag amul ku ndaw ka amul kii mooy doomi président bi amul kii mooy rakki président wala xaritam képp koo xam ne tooñ nga tege na ci sa kaw rek yoon daa war a tege ci sa kaw noonu lay doxe su amatul maandu te amatul justice amatul la fay daal di sës mooy réew mu tas ñaareelu bind bi moo di lislaam ci boppam dafa bëgg sutura ci nit ki ki mooy yàlla suturaal boppam borom bi tabaraka wa mën na koo suturaal su jéggaloo sunu borom mën na koo jéggal xoola ndaw si nga xam ne dafa ñëw wax ne dafa njaaloo sonne ci noonu ngir ñu mën a teg atte bi ci kawam di dem di dellusiwaat di dem di dellusiwaat ba nga xam ne ay at ngir mu bëgg ñu teg loolu ci kawam te ndaw soosu xam nañ ne ginnaaw dafa ëmb am na góor gu ko ëmbal kenn laajut ku mu doon te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ko wane ko ku mu doon mu ne ko diw sàngam la ndax xam na ku mu doon waaye kenn waxul lu jëm ci waa ji nga xam ne moo ëmbal ndaw si dañoo bàyyi mbir ma noonu ne cell ndax amaana ku mooy yàlla la koo xam ne tuub na yàlla jéggal na ko mu jeex moo tax kenn laaju ko kon atteb lislaam ak yërmandeem day feeñ foofu ci ne lislaam jógul di gëstu di seet nit ñi pour indi leen ngir mën leen a mbugal wala mu rey leen wala mu dagg seeni loxo que sutura tege ci kawam malaanam sutura di tege ci kawam lislaam du ko yiri du ko yëkkati du ko muri li feeg moo ñëwal boppam waxal boppam ne nii la wala naa la wala ay temoon yi gisal ko seen bopp li waral loolu moo di moykati yàlla yi li nit ñu baree bari defe nga xam ne jàpp nañ ne rek képp ku xas dugg ci mooy yàlla naan na sàngara njaaloo na def na nangam ñu ne kooku alku na génn na ci diine ji dafa mel ne laa ilaha illallah amatu soxla ci xolam loolu njuumte la bari na ñoo xam ne ñi ngi nuur ci ak mooy yàlla te fekk yiw wu bari mu ngi ci seeni xol waaye dañoo koo gut rek yiw wu bari mu ngi ci seeni xol xam nañ ci société bii nu nekk ñu bari ñoo xam ne dugg nañ ci ay mooy yàlla tuub génn ca loola borom bi tabaraka wa taala jubbanti leen ñu bokk ci ñi gën a baax ci nit ñi xam nañ fii nu toll nii ci ay nit ñoo xam ne amaana ba watul ñàkkut ñu may dégg ci ñoom ñoo xam ne ba nañ fii ab xutba ci àqi ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo nit ñi ak àqi ña nga xam ne ñoom lañuy ñuy liggéeyloo maanaam surga sax ak seeni patron xutba boobu ba mu jàllee ay patron ci seen bopp woo nañ ma ne ñoom de am nañu doon liggéey ci seen biir ñoo waaxul seen bopp ba ñëw ne leen ñoom am na lu luñ daan jël ci seen lañ leen doon dénk loola dañ ko ko bëgg a fay wala mu jéggal leen ko ñu won leen ne leen loola jéggal lañ leen ko kon ba léegi xeet wi xeetu mbaax woo wi mi ngi fi jeexut jógu fi kon bul jàpp mukk ne ku tàbbi ci mooy yàlla wala mu nuur ca dafa doon ko xam ne alkure jeexal na déedéet buntu tuub bi mi ngi fi buntub mbaax a ngi fi te amaana sax jamono yam nekk ci biir loolu téewut ak mbaax a ngi fi bari aana ay nit ñoo xam ne ci ak càggante la ñuy xëy di ci gont ay garam place ak ay caaxaan ak yoo xam ne yu tekkiwul dara la waaye su kenn ci ñoom taxawoon fi béréb dégg ku ŋàññi diine wala mu saaga ko wala mu doyadal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala kenn ci ay saxaabaam pare na pour xeex kooku ànd ak càggante yam nekk waaye loolu mënu koo muñ kon jaadu na ci wootekati lislaam ak jàngalekati lislaam ñu jariñu ci mbaax googi nga xam ne iimaan bu fekkee ma nga ca xol ba donte cër ya sàggan nañ imaan a nga ca xol ba ñuy fexe ba loola ñu yokk ko yëgal ko boroom fexe ba lam nekk ñu génne ko ca ndànk ci ak yeete aku xamal fexe ba mu ràññee xam la baax ak la baaxut xam li koy yàqal ak la baax ci moom mbëggeel googee mu làq ci biir te feeñut ci cër yi mu fexe ba mu feeñ ci cër yi ndax kat nit ki mën naa nekk ci lu mel noonu ba noppi mu feeñ ci cër yi am na koo xam ne dañ ko daan indi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy naan sàngara su naanee sàngara bu ñëwee rek ñu dóor ko mu demaat ba ëllëgee ñu indiwaat ko benn bis ñi di ko indi am ko ne kii de yàlla na ko yàlla rëbb laanahu llah ma akthar ma yuta bihi kii yàlla na ko yàlla rëbb bis bu ne rek ñu indi ko ñu koy dóor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen bu leen rëbb seen mbokkum jullit ne leen ma alamu illa annahu yuhibu llah wa rasulah li ma xam ci moom de mooy ku bëgg yàlla la ku bëggub yonentam la xoolal lool koo xam ne ma ngay naan sàngara ñi di ko dóor waaye teewul bëgg yàlla akub yonentam mu ngi ci xolam kon kooka la ca des mooy mbëggu yàlla googu ak yonent bi ñu won ko nan lay def ba mu feeñ ci cër yi soo yàkkamtee daal dina yàqu na daal koy atte sànni ko noon ye jël ko faf yàqal ko faf la nekkoon ca xol ba mën naa dem ba yàqu su ko defee dimbalante googu mooy doon loo xam ne lu jaadu la ñiy woote dañu war a dimbali ñi sàggan li yasdaadu imaanan ngir ñu mën a dolliku ak ngëm yàlla waaye duñ leen xeex seen ngëm di dellu gannaaw ba faf ñu bàyyi diine su boobaa lor lay doon allahuma aiz al islaama walmuslimin wa adil alshirka walmushrikin wa dammir aada addin allahuma farij hamma almahmumina min almuslimin wa nafis karba almakrubin waqdi dayna an almadinin washfi mardana wa marda almuslimin allahuma la tajcal aldunya akbara hammina wala mablaga cilmina wala ila annaari masirana واجعل الجنة هي دارنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآنس وحشتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين